nga xam ni moom la tax a daje tey di sargal président am nanu ko diggante démb ak tey ay sabar ak suufle sàppi na leen te it kontante la ngir nag cër boo xam ne nii président cëral nanu ko loola kenn du leen ci yedd noonu la mën a deme waaye man mi nga xam ni maa xam cene ba ni mu bindoo man maa taamu ma woote fii ci bureau bi tàllal samay loxo sëriñ Thiénaba tàllay loxo samay loxo njabootam waaye tàllal samay loxo population commune Thiénaba ñu ñaanal président yàlla may ko deuxième mandat ci premier tour waaye tàllal samay loxo yit ci conseil municipal bi nga xam ni askanu Thiénaba ñoo ma wóolu dénk ma ko population Thiénaba wóolu ma dénk ma ko président gis loolu ba yëkkatiwaat poste un conseil dolliwaat ma ko loolu moo tax ma woote ko mu demee nii ndax nag kóoluteef la waaye yaakaar la kóoluteef nag gu ànd ak yaakaar bu nu ko tegee ci sam ndodd su fekkee kontaan nga benn it war ngaa jàq téeméer ndax dañ ñu fee teg pour ñu liggéeyal Sénégal teg joogu ñu fi teg ñu liggéeyal Sénégal bu fekkee dañ ñoo fal bis bu del ñuy tëgg ay sabar di fecc di dal fu nekk ñu di fa wër jàpp na ni dañuy ndaataa kon la taxal ñu fal ñu mérito wuñ ko kon dañuy dékk suñuy loxo suñu borom waaye dékk suñu loxo suñuy kilifa ñu ñaanal ñu kóoluteef gi daa am ci ñun yàlla bu yaakaaram tas yaakaar ji du lenn lul euh, jëmale Sénégal ci kanam jëmale département Kees ci kanam waaye jëmale commune u Thiénaba ci kanam yaakaar jooju nag bu ànd ñaan ak kóoluteef ak jàppale am nañ yaakaar ni dina sotti kon man kenn gënumaa dalum xel ni ñi nga xam ne mooy cent cinquante personnes yi nga xam moom la président fal man kenn ëppuma ci yaakaar ndax samay kilifa laa yaakaar e, di ñaan yàlla bu baax nag e, ngeen dolli ma ñaan waaye dolli président ñaan ba fi mu bëgg a jëme réew mi yàgg yàlla àggale ko fa ndax am na mission boo xam ne nii bu fekkee yàlla dala koo teg ba pare sa xel di liggéey waaye sa xel di nàcc waaye nga am gis-gis képp kuy nit war na laa ñaanal pour loola àgg te président foofu la jëmee Sénégal balam te mënan naa bañ a demee nii mënan ngeen a toog fa ngeen toog yor seen kurus dinu ñaanal te yëg naa ni yéen a ngi may ñaanal waaye nag su ngeen déplacé waate fii ñëw fii déedéet du cër bi ma président jox moo leen tax a ñëw yëg bu ngeen yëg président moo tax kon may seeral président ni ko cër bu mu yaakaar ne doomu soxna jox nag ko cër bi ko cana ba jox moo ëpp booba loolu mën naa koo seede parce que ndawam laa nekk ci seen biir waaye li ngeen di liggéey ci biir ak biti xam naa ko yëg naa ko te nag ñaan yi ngeen di def ak jàppale bi su dëkkul département Kees ne ko président récupéré déetu ko ñàkk illaa yow mi diini te lan moo tax ma wax loolu département Kees benn xalifa général moo fi nekk muy Serigne ba kon su njabootam toogee ma bokk ci seen biir ngeen wóolu ma teg ci kanam président amaat ci man confiance na xelam dal ni département kes am na ko te diitu ko ñàkk ci bi ma demee Makka parce que nag néew na nga nekk ci ab liste wuute ko mu mel na mu la gënale parce que bi may dem dama doon ñaan yal na nu am euh, quatre-vingt-quinze pour cent mais defe naa leen am ëpp na ko dafa yëmu ji sax yéeme te loolu jigéen ñi suyee leen ci rôle bu am solo. di sant responsable politique yi nga xam ñoo nekk ci département bi ku mel ni Augustin Tine euh, ak Thierno Alassane Sall euh, taxaw nañ taxawaay bu ma sëkk euh, jàpp naa ni def nañ tournée boo xam ñoo responsable yépp ñoo ko ànd ba ci Abdou Mbaw muy tournée bu rafet di sant it Talla Seck ndax nekkuma fi mais taxaw na taxawaay bu rafet tey jii dama ko woo xam naa dafa sori wala portable am tëju mais kon informe bi dina ko fekkee bari na ci conseil yoo xam fa dëkk ban dëkk taalaa taal seen oto dem jëli leen mais benn paret moo leen yóbbuwaat loolu day mat a seere ni taala sekk ci coalition bi la bokk mais taxaw na taxawaay bu mat sëkk jëf na jëf ju rafet nit nag bu defee lu rafet danga koy wax euh, sëñ Mor sekk daal kontaan naa Baye Abdourahim kontaan naa Baye Diop kontaan naa yëgalal sëriñ bi ni ko kontaan nanu na ñaanal président Macky Sall na ko gën a mi ngi koy jàppale waaye na ko gën a jàppale euh, doomam la léppam la euh, xam nan ni insa rabbi bu ñaanee dina nangu kon na ko ñaanal président Macky Sall fi mu jëme réew mi yal na ko fa yàlla àggale waaye ñi ngi ñaan bu nu àggee 2019 premier tour président Macky sàll jàll te jàlle na boppam ba pare na seen xel dal président Macky Sall li muy liggéey ci réew mi jombante na ak réew mi bañ koo falaat ndax bi muy ñëw ci réew mi kenn foogul woon ni président Macky Sall mi ngi ñëw mais yéen kilifa yi xam ngeen ni bi ngeen di ñaan ñaanu leen woon président Macky Sall toog da ngeen a ñaanal ki gën ci réew mi yal na ko fi yàlla teg man xam naa ci dara kilifa yëpp loolu lan doon ñaan kon su yàlla dogalee président Macky Sall dikk jël réew mi kon moo gën ci réew mi yal na ko yàlla gën a jàppale yaakaaram yàlla bu mu tas waaye lépp lu mu yéene yal na ko yàlla àggale kàddu yi daal laa noonu naa ko wax. bi sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati kàddu yi nuyoo ak ziyaara teg ko teg ko ci loxol sëriñ Modou Rokhaya Seck kàddu yi jibe ci moom sëñ Modou Rokhaya kenn ku ne xam na ni matale na bu dee lu jëm ci président de la république waroon a jëme jóge ci sëriñ Canaba xam ngeen ni mat na bu dee lu jóge ci président de la répiblique war a jëm ci ñi nga xam ni ñoom la ñu joxal ciru teraanga bi tey suñu njaboot ku ne xam na ni mat na bu dee ñaan gi mat na ndax Baye Abdourahim yëkkati na ko kon ñun kàddu gi dootu jar muy gudd euh, taala dafa bokk ci nun bokk ci njabootuk seexu canaba yàlla dogal cëru maire njëkk ci loxoom fii ci canaba kon président Macky Sall jigadiwul canaba waaye li muy ñàkk ñàkk jigadi canabaat ñàkku leen a jox seen cër ndax li ma ko waxoon bi mu fi mujjee ñëw ni ko bi nga yoree responsabilité ci nguuru président Abdoulaye Wade cëral nga canaba ba ñëpp xam ko ndax ñëw nga fi yor poste ministre bu nekk muy hydraulique di ministre de l'intérieur di premier ministre bu ci nekk ñëw nga ci canaba bi nga nekkee euh, responsable euh, directeur campagne itam ñëw nga canaba kon loolu ab cër la boo xamante ni cëral na ko canaba ndax président mënoon na koo dénk loolu te du tax mu bàyyee xel Thiénaba noonu ba poste bu mu ko dénk rek mu sedd ni Thiénaba ci la bokk mu ñëw jox leen ci cëram kon loolu ñu ngi ko ci doon sant bi yàlla dogalee mu génn ci euh, gouvernement président Abdoulaye Wade ci dogalub sunu borom sédd na canaba ndax bokk na ci dëkk yi nga xam ne bu musaan jóg di wutali boppam da ciy ñëw ba bi mu jógee di wut réew mi dëkk yi mu njëkk a dem canaba ci la bokk fi la jullee timis keroog ak kàddu yi sëriñ canaba joxalanteeg moom te sëñ taala fésal ko léegi ci ni kilifa diine yépp dañ doon ñaan ki gën ci réew mi yàlla teg ko fi muy kàddu yooyu nga xam ni sëñ canaba jibaloon na ko ci diggam ak moom ni ko képp koo xam ne li nga fas ci sa dënn ak sa xol mooy defar réew mi ci jàmm incha allah yàlla dina la ko jox te yow mii leer gi gis ci sa xar kanam ak lewet gi ak yaru gi bu dee moo ne ci sa dënn bu soobee yàlla di nga jot ci lii kon kàddu yooyu taala yëkkati ni moom la kilifay diine yépp doon ñaan ngir ki gën ci réew mi yàlla teg ko fi président Macky Sall sunu njort ak sunu xalaat ak yépp jëm na ci ni ñaani kilifay diine yooyu moo nangu ci moom ndax kenn xalaatu ko woon yàllaa ko indi teg ko fi ci ci ci dogalam ak ci ñaanu nit ñu baax ñi itam bi yàlla dogalee itam mu dem ba moom yëfi boppam cër bu mu jox kilifay diine yi rek ci biir réew mi jox na ko canaba kon mooy ñëw na fi ñëwate fi canaba kenn ku ne xam na ni jiitu kenn benn këru diine jiituwu ko ci canaba ci ci réew mi ci ay teraanga ak def njëkk ndax neewoon naa ko ca gouvernance musoo gis benn doomu sëriñ canaba boo xam ne depuis Senghor ba ci sa toogaay bi mus naa jóg dem ci rajo di di xaste wala muy coow ngir lu mu amul wala nga gis ñu dog ab tali wala ñu takk morso yu xong ngir li ñu amul ma ni ko diine doo nga leen ko doon jaral te ñaanatuñ yàlla réew mi àggaat ko loolu yàlla dogaloon mu jóge ci ñëw julli si canaba àjjuma muy cër boo xam ni moo ko njëkk a def ci ci ci président de la république ci réew mi kon président Macky Sall média bi ñu ngi ciy wax di yëkkatil kàddu sëriñ canaba yoo xam ni jur gim jur président Macky Sall Macky Sall dafa wëlbatiku président delloo ko di taalibe ci moom doomam la xaritam la wëllëreem la waaye daa jëlaat lépp jëndi ko ak taalibe di wax ak moom guddi di wax ak moom bëccëg suy jóg di seet ñi muy njëkk a seet ci la ñuy bokk buy wax ñi muy njëkk a waxal ci la ñuy ci lay bokk buy terleet ñi muy njëkk teral ci la ñuy bokk kon président na ko wóor ni ak ñi mu àndal di liggéey Serigne Thiénaba ngi ci seen wet ci zahir mu ngi ci seen wet ci baatin di leen ñaanal bépp président bu fi mës jaar ndam lu mu am yàlla na yàlla jox président Macky Sall ndam lu ko kawe réew mi yàlla ci ëppee jàmm ndax kenn ku ne xam na ni ni parti yi demee ci biir réew mi bi yàlla dogalee moom mu ñëw jiite réew mi parti bi toll ni socialiste ak ni mu toll ci réew mi ak ni ko jiitee nga xam ni lu ne xam na ko ci kenn ku nekk gàlle nga ci kawam teral na nit ku nekk dat bi euh, diir bi mu ko yor yombatul nit yor ko fi ah, bu wëlbatikoo jëlaat loxoom joxante ak président Macky Sall ba mu jëlee réew mi ba nëga ni loolu kenn ku ne xam na ni du lu yomb waaye suñu borom moo ko dogal ci moom parti bu toll ni tam euh, AFP di Moustapha Niass jëlaat loxoom jox ko mu wóor ñu ni bi muy wutandoo réew mi ak ñooñu ñaar ñooñu lañ foogoon ni xay na bu bu jël réew mi dee am Idrissa leen ci rax waaye ñooñu kenn du leen ci jiitu kon ñooñu ñëpp jëlaat seen loxo jox ko ba mu gañe réew mi ñu wëlbatiku xam ab yaram wóolu ko ak i tegginam ñu wëlbatiku ni ko dootuñu xëccoog yow benn cër sees bi nga toog doy nañu te defar réew mi moo moonu ñor ñun ñëpp loo nu jox nu téyel la ko ngir ni ñoo la jiitu ci yëf yi di sa mag di sa nijaay te yow fi nga toog nga toogal ñu di jiital ñi réew mi kon loolu sens boobu président makk Sall moo ko njëkk am ci ab président fii ci réew mi kon sens boobu yàlla bu mu ko ñàkkati mukk yàlla na yàlla dogal nguuram gii mu toog yàlla na ci jàmm dolliku ci Sénégal yàlla na ci xéewal dolliku ci Sénégal ak bennoo ci zahir ak ci baatin di ko sant itam ci teraanga bi mu defal suñu njaboot gi ndax benn dëkk ñaari nit di ci yeewoo au bi ni réew mi toll bëgg a dem 14 million personne euh, cinq cent cinquante personne war cee génn nga yëkkati ci ñaari cër jox ci jox ko Thiénaba loolu ak bàyyi xel la teraanga la ndax mënoon na ni département ba fal nañ ci président Talla euh, maire kon jëratul may jox seen Thiénaba beneen cër ndax ki ma ko jox doomam la te ci wetam waaye mu yëkkatiwaat comme ni ko sëñ moo du waxee jël beneen cër muy président Abdou Ngingue tegaat ko muy conseil terewaat ko sëñ Thiénaba loolu na ko wóor ni sëñ Thiénaba yëg na ko njaboot gi yëg nañ ko kuy wëllëre ak am di jàmm yëg na ko kon ñu ngi koy sant ci loolu di ko ci gërëm di ko ci ñaanal yàlla di ko xamal ne rafet nañ njort ci ñii fi toog di njabootu sëriñ Thiénaba ba tax cër yooyu mu jox leen ko sëñ Thiénaba kontaan na ci bég na ci Euh, sunu njortoor rafet na ni day gën a dolli leneen ci cana ba waaye amul benn cër bu mu ciy wàññiwaat ñu ngi sant di gërëm di ñaan di ziyaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala